rasuluhu nabiyu lmustafa alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahuma arhamna bilqur'ani alkarim wanfana bilayati wa dikri alxakim wajcalahu lana xujjatan yowma addin allahuma anfacna bima sarafta fihi min alayat wa dakkirna bima darabta fihi min almathulat wa kafir bi tilaawatihi anna sayyi'at innaka mujibu da'awaat allahuma taqabal minna xatma alquran wa tajawaz anna ma kaana fi tilawatihi min sahmin aw nisyan aw taxrifin aw taqdimin aw taxirin aw ziyadatin aw nuqsaan aw tahwilin ala xayri ma ansartahu aw taadilin inda tilawatihi aw kasalin aw zayxi lisan aw wuqufin bi xayri waqf aw idraamin bi xayri mutaxarrif aw idhaarin bi gayri bayaan waktuhu minnaa alaa tamaami wal kamaali wal muhadhabi min kulli alxaan warzuqnaa fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al a'daa'i wal qalbi wal lisaan wahab lanaa bihi al xayra wa saadata wal bishaarata wal amaan wala taxtim lanaa bi sharri wa dalaalati wa tugyaan wa nabbihnaa qabla al manaayaa min nawmi al xaflati wal kasalaan wa aminna min adaabi alqabri wa min suaali mankarin wa nakiir wa min akli diidaan wa bayid wujuuhanaa yawma albaas wa aatiq riqaabanaa min anniiraan wa yammin kitaabanaa wa yassir xisaabanaa wa thaqil miizaananaa bilxasanaat wa thabbit aqdaamanaa alaa siraati wa askinnaa wasata aljinaan warzuqnaa jiwaara sayyidinaa muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa akrimnaa bi liqaa'ika yaa dayyaan allahuma ijcal alquran alazima rabia qulubina wa jalaa ahzanina wa dahaba humumina wa qaidana wa saaiqana ila jannati naim allahuma ijcalhu anisana fi lwixsha wa musaahibana fi lwixda wa misbaaxana fi lzulma wa dalilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzeyxi wal ahwaai wa kaydi alaadaa yaa raxmaan yaa raxiim allahuma axtim bi saadati ajalana wa xaqiq bi siyaadati amalana waqrun bil aafiyati xuduwana wa asaalana wajal ila rahmatika masirana wa maalana wasbub sijaala afwika ala zunubina wa munna alayna bi sitri uyubina allahuma ijal taqwaaka saadana wa siqata bika zuxrana wa atiqaadana wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح خليل المصطفى عليه رضوان الله ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammad xaatimi nabiyiina wa imaam almursalin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad sadaqa al-aziim allahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allaahu akbar bismillaahi rahmaani rahiim qul auudu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri xaasiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri xaasidin izaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim qul auudu bi rabbin naasi malikin naasi ilaahin naasi min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naasi minal jinnati wan naas sadaqa llaahu l-aziim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 nam ko baaxoo defe ak yii yëpp ñu di ko fi teewal ginnaaw bu ñu jëfee ndigal yu tedd yi nga xam ne digal digal na ko digal na ko nu mboolem taalibe yi boo wax ne mi ngi sant yàlla bu baax sant Serigne Touba di leen sant mbooloo mépp taalibe yi ak jullit yëpp ci jëfe gi ñu jëfee ndigal li nga xam ne bàyyi ko na ci moom jëm si ci mbooloo mépp jullit yi ak taalibe yëpp ak mboolem ñu ko mën te muy ndigal koo xam ni duñ ko waxee woon ca yëg-yëg waa rajo madaris al Quran yi ñoo ko jëlee woon ci seen taalib daal ba mu ñu ko def ñaare na ak te moom mi bind ko mu daal ko bind ndigal la ci ànd ak ñoom ñëpp lépp nekkoon ci loxoom. ci jamonoy sëñ Saalihu ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine ba ci jamonoy sëñ Sidi Muxtaar bi fi bàyyi ko bu yàggul yal na yàlla yokk leeram lépp mu daan ko ànd ak ñoom daan leen ko jiiteel ba tey jii lépp ak si ci loxoom mu waxoon ne dafa bëgg ñu def ko nañ ko daan defee nu ko raw wax na nag ngeen ko noona ñu ngi ñaan suñu borom fay leen ci ngeen jippee te mooy Saadatu Daarayni barke borom Tuubaa bu loolu weesoo itam nag la taxaw ñu di ko digle rek mooy bëgg jullit yëpp am jàmm bëgg taalibe yi am jàmm xéewal wàcc fi dara bañ fa manqué mu wax ne nag bu ñu ko defee ba noppi nañ ko ñaanal moom ci jëmmi boppam ndax yan bi woyof ci moom te lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi mu liggéeyal ko bu ñu ko ñaanalee beral ko ñaanal ba noppi ñu ñaanal mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi moo xam ñaari wàll yëpp bokk sëriñ Tuubaa yi ñaari wàll yëpp ak taalibe sëriñ Tuubaa yi mag ñu boolem loo ci sëñ ñu boole ko ci ñaan bi ci yëpp taaliba sëñ Tuubaa yëpp ci jugee ñaanal jullit yëpp ñaanal àdduna bépp suñu borom def fi jàmm ndax li ñu liggéeyal sëñ Tuubaa ci ndigalam mën na lépp ndax wax na ni sëñ Tuubaa moo wax ni rajaa uman bi yata'allaqa yuraa mu muhaqqaqan wa maa yasuubu lan yaraa képp ku yaakaar sëñ Tuubaa sa yaakaar du mukk te doo gis loo taqale nan góor nag ba yaakaar gi tëbb loolu la sañ bi waxoon nañ ko jottali ci gàttal ñoo ngi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ñaan ñu teew kaat yu baree bari barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu